njàngaleem sëriñ Touba xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax am na ñoo xamante ni topp téere yi di jàng noonu mën leen a jafe waaye soo ko buñ ko toppee noonu di ko wax baat baat baat noonu di ko firi comme ni ñuy def ci majaalis yi noonu am na ñoo xam njàngin woowu léegi léegi du yomb ci ñoom moo tax it ñu am xalaatu léegi yi nga xamante ni dafa doon lu war ci nit ki mu xam ko ñu defal leen ko. ñu beral leen jotaay yoo xamante ni léegi-léegi dañ koy génne noonu rek jukki ko noonu def ko nga xam maanaa bu ñu teg lañ leen di waxal ngir ñu mën koo téye ci seenum xel mën koo jàpp mu doon lu gën a yomba jàpp ci ñoom ñi nga xam ne wàllu majalis bi danañ ko mën a jàpp noonu te ba tey tamit eh, muy bu ñuy diglu majalis bi du tee danañ koy mën a xamaale waaye du tee ñaar yëpp mën naa nekk te suñ borom bu ñu mënaloo lépp rek danañ ko def insha allahu taala kem lañ ca xam kon tey li ñuy génnee mooy li nga xamante ni dafa yem dafa dafa aju ci tawxiid ndax xam nañ ne mukallaf nit ki saa mu demee ba mat mukallaf léegi suñ moom daf koy topp ay jëf am loo xamante ni da koy war nag ngir mu xam ko te la ci njëkk nag dañoo wax ne nit ki saa bu matee rek mooy mu fas yéenee xam li nga xam moom mooy tawxiid li njëkk ci li mu war a njëkk xam saa bu matee mu kallaf rek mooy tawxiid jàng tawxiid ngir xam ko xam ni muy wëralee ngëmam ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ndax suñu borom dafa am ci moom lu ñu war a ay ay melokaan yoo xam ne dañu ko a gëm ci moom ndax dafa sax ci suñu borom subhaanahu melokaan yoo ko dàq ci suñu borom ndax dafa jommonte ak moom am yoo xamante ni mën naa am mën naa ñàkk kon su ko defee. bala ñuy dugg ci melokaan yi nga xamante ni dafa sax ci suñu borom subhanahu wa taala dafa am lu ñu jiitalee wax ji muy lu am solo ndax bokkaale dafa yomb lool ci nit ki mën naa am fu mu tënk mën naa am lu mu xam ne da koy fas ci yàlla sax fekk loolu jomb na suñu borom subhanahu wa taala kon li ñuy njëkk wax rek mooy ñu xam ne yàlla mom rek mo yalla te kenn du yalla kudul mom li nga xamanteni kenn mënu koo doon te mom moy ila lolu baat la bo xamanteni ci suñu borom rek mom moy ki nga xam moko ko da ila da fay doon baat bu 10 bo xamanteni ni amul benn mindi bu ko àttan ndax képp ko xamanteni ci kaw suuf jaar na fi bañ tuddé ko diko woyé yalla wala mu dem ba jey ko bam japp ne mom mooy kon koku amna melokan yu bëree bëri yu dàq ak ak yàllam ci mom ci kanam sax danañ leen indi melokan yi tax ñu wooye loohu ye suñu borom li tax ñu xam ki yalla li kan motax muy ak rubu rubu bi yam gi li tax muy rabb yu yep danañ leen ko leer am leer nañ kon yalla dañuy wax ne yalla bayiko wul ci dara xam lolu bala ñu dugg ci melokan yi danañ leen jiitalal melokaan yoo xam te mooy tax nga am fondement bu dëgër ci mbir yi nga xam fi ñu jëm. kon ñu xam ne yàlla moom ci jëmmi boppam yàlla duñu wax ne dafa bàyyi ko ci dara ndax lépp loo gis ci kaw suuf lépp lu yàlla bind dafa am ci lu mu ko jëlee bindee ko ci dara. ni ko noonu tamit mbindeef yi li nga xam ne dañ ko inventé xam nga mbindeef mënut a créer mais day inventé di suñu borom bind ci la ñëw loolu lay sàkkaat daal ci inventé ay mbiram te inventé it génnul li yàlla bind moo tax li nga gis ci àdduna yëpp am na lu muy tegtale ci suñu borom subhaanahu wa taala am na lu muy wane am na lu muy junj jëmale ko ci yàlla waaw moo tax yàlla duñu wax ne yàlla dafa bàyyi ko ci dara fi na oto màdd la bàyyi ko ci matière la dafa am matière bu ñu jël boole ko bind ci oto lafa des des fa lii nekk oto ni ki noonu tamit li nga xamante ni mooy avion dafa am lu ñu jël boole ko bind ci ni ki noonu mbindeef yi tamit yàlla dafa jël ndox ak suuf ak maanaam bind leen ci jëlee leen ci kon yàlla duñu wax ne yàlla daa bàyyi ko ci menn mbir yàlla jugee ca daal di soqee ko ci mbir moomu doon yàlla lafa des des fa déedéet loolu moom amul yàlla bàyyi ko wut ci dara ni ngi noonu tamit danga war a gëm ne yàlla nekkul ci biir dara xam nga ni nga xam noonu la ñu waxee ne euh, maanaam yenn ñi wax ne yàlla maam jàpp na dañuy fas ne ñoom yàlla daal ci asamaan la nekk fi ne yàlla nekkul ci asamaan nekkul ci suuf nékkul tamit ci diggante asamaan ak suuf kon nga tënk yàlla ne maam yàlla dafa nekk ci benn mbir rek bàyyi feneen. kon da ngay gis ne da nga tënk yàlla ci benn barab te yàlla tënkuwul ci benn barab man seetaan naa eh, fii ñu nekk nii dafa am koo xamante ni foo xam barab la boo xam dañ koy tuddee speakers kono. maanaam ñaari eh, weekend bi nii nit ñi dañ fay dem nga xam mu woote ku bëgg a woote ak looy woote rek boo fa demee mën ngaa def say say say say daaw say daawa dal diine yu bari yu bëree bëri dañ fay daje di waxtaan léegi dama seetaan koo xam dafa wax ke kook ki mu doon débaal ni jullit la mu ne ko maanaam yàlla mu ngi fépp waaye gis nga yàlla mu ngi fepp ak lépp nga fa yàlla ñaari baat la ci wuute léegi lépp nga fa yàlla dafa gën a dëgër ci yàlla mu ngi fépp bi mu ko ko waxee nag xam nga ki nga xam ne xelam nu ko neex lay xalaatee kook fu ngay wax nii dafa gi kooku dafa am foo xamante ni foo ngay waxee moom ngir tënk xalaatam ba du mën a génnaat foofu di am wax yu muy surtuwaat wara bi ko xé na yalla mu ngi fep mu nako ndax yalla mu ngi sama kaw bakkan bi kon bu re yalla mu ngi fep ke mu ngi sama kaw bakkan nga xam legi fi toni koku gis nga deg dégg fa toti motax bi ko xé lo rek dafa jek jek nako yalla mu ngi manam kon yalla mu ngi sama kaw bakkan wa da nga wara gëm ne lepp manam mu ngi fa yalla suñu borom lepp dafa téwando fi kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala waye yalla dis ko teunk tamit ci benn bat okay loolu moo wax noonu moom mooy booy wax nit koo xamante ni xelam xëy na dafa fu muy xalaatee doo ko doo ko ndax boo ko waxalee dafa am leen lu muy génne waat waaye yàlla dañuy wax ne suñu tubaab wax ne yàlla nekkul ci benn mbir comme ni ñuy wax ne yàlla mu wala yàlla mu ngi fii wala yàlla mu wala ñu ne maam yàlla daal ñu ko ñenn ñi gëmee jàpp ne dafa nekk koo xamante ni dafa toog ci kursi yu nekk ca aras toog comme ni ngay toogee sa baax am am na ci ñoom yegg nañ ci sax ne maanaam mën nañ laa di seene yàlla ni mu mel ak nam toogee ca aras nam toogee ci kursiyon bi ca ca aras xam nga loolu dàqunte na ak dëgg-dëgg taw tawxiid ndax yàlla su fekkoon ne dafa nekk ci benn mbir dafa tënk kon dañ koy day nekk ku ñu xam dañ koy dañuy dañuy def li nga mooy dañoo maxsuran muy ku dañ koy tënk ci benn mbir te yàlla tënkuwut ci dara waaw. kon ni ki noonu tam yàlla nekkul ci ron dara. yàlla nekkul ci ron dara comme ni ñu wax ne yàlla nga jàpp ni yàlla dafa nekk ci kaw asamaan maanaam boo ne istiwa alal arsi yàlla ma nga ca arasam nga kon léegi yow tënk nga yàlla ne kon yàlla kon aras gi moo ko ëpp doole ndax xam nga ne kon su fekkee dafa nekk ci kaw dara la ko yenu loolu loolaa ëpp doole yàlla kon yow loolu nga saxal foofu te loolu dàqonte nag tawxiid bu sell kon loolu du tawxiid bu sell kon tënk yàlla ne yàlla fii la nekk boo nee yàlla ma nga ci istawa ala nga jàpp ne yàlla ma nga fa ca aras toog ca kaw aras nga comme yow toogee sa kaw baan kon yàlla aras gi maanaam kursi yu jàpp ne yow comme ni nga toogee sa baan yi moo la yàlla toogee ci kaw kursi yam kon yow sa xal nga ci boppam ne yàlla kursi yu gi moo yenu yàlla te yàlla kursi yu ngi ëpp doole kon yow loolu nga saxal ci tawxiid ndax wax bu dikkee rek toujours day am leneen lu muy saxal donte donte waxoo wax ja sax mais am na leneen lu muy lu muy lu muy lu muy saxal moo tax kon loolu du tawxee bu ciel waaw kon yàlla nekkul ci ron dara ndax kon kon loolu da koy not waaw ni ko noonu tam yàlla euh, amul loo xamante ni da ko féete kaw waaw nekkul ci ron dara nekkul loo xam nekkul ci ron dara waaye tamit nekkul ci kaw dara waaw mooy mooy waxin boobu ndax tey fi ne yàlla bu fekkoon dafa bàyyeekoo ci dara dañ naan yàlla kuñ bind la ndax kay tey day leer nañ ñoo xam ne yàlla ki yoon koo bind am ci lu bàyyeekoo te loolu jommantaa yàlla niki noonu yàlla su fekkoon dafa ne ci biir dara dañ naan yàlla lu ñu takk la lu ñu ma takk la ci benn anam ci benn mbir wala ñu takk ko ci fenn motax tax nit ku ci zaman nekkul makaan munoo wax muno ko teunk ci zaman munoo ko yitum teunk tam ci makan ni ko noonu tamit fi mu ni manam suñu borom nikul ci ah, rondar manam bu nekkon ci rondar rek day nekk lo xamni da koy not da koy not bu nekkon ci rondar rek loolu loola la ko féete kaw mo koy not ni ne ko mu nekkon ci kaw dara kon lo da da koy yanu kon lo day da di ëpp doole yalla ah kon kon motax fi lu tax ñu jiital loolu mooy da ci am pas-pas yoo xam nit ñi dañ koy pas te fi mu toll nii yooyu dafa dàqonte ak tawxiid bu si moo tax yàlla gis nga ni ma ko leeroon bàyyikoo ci dara ndax fi ne bu bàyyikoon ci wenn xeet dañ lay xam ne yàlla ci xeet sàngam ci la bàyyikoo mais yàlla dafa bàyyikul ci wenn xeet waaw ah, ok mënoo koo tënk ci makaan mënoo koo tënk ci zamaan mënoo koo tënk ci barab mënoo ko tënk ci wenn xeet ci la bàyyi ko moo tax muy wax ne fa kullu maa yaxtur bi baalin abadan fa bi xilaafi zaalika rabbuna al ahid ahad lépp loo xam ne day tënku lépp loo xam xel da koy xalaat wala mu toq ci biir xelu doomu aadama ngay jàpp ne yàlla rek loolu wuute nag yàlla moo tax yàlla doonu kuñ mën a xam kon loolu dama ko doon jiital ngir mu leer nañ ndax tawhid dafa dafa dafa am solo lool nga xamante ni euh, lu am solo daal nga xamanteni ni doon loo xamanteni ne nit ki bu ko amee tawhid képp rek mën na laa musal tawhid képp rek fi ne boo ko amoon nii dëgg-dëgg bu set bu sell loolu rek ma ma ngi suñ borom mën na la cee musal nii ba dugal la aljanna maa mën na laa musal aar la ma musal la ci li nga xamanteni ni moom mooy sawara ba nga mujj ci aljanna fintoo moom tawhid képp rek moo tax lislaam bi mu njëkk bi ñuy wàcc ci yentu seen sallam taw ne tawxi loolu jàngal saxaaba yi lak laata jëkk ay julleek woor gi yëpp wàcc fi noonu ci njëlbeenu islam tawxi yàlla ay alxuraan yi wàcc yëpp ci tawxi la doon jëm fi mu toll kon léegi ñu dugg nag ci ñaar fukki melo yi nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni dafa sax ci suñu borom subhaanahu wa taala léegi nag ci biir melo yooyu danañ ci lim yoo xamante ni dañ leen tuddee nafsiya ndax ci yi nga xamante ni dafa sax ci melokaan yi sax ci suñu moom dafa am yoo xam dañ koy am ci yoo xam dañ koy tuddee li nga xam mooy salbiyaat ak yoo xam dañ koy tuddee maani ak yoo xam dañ koy tuddee maanaam yi yooyu yëpp bu ñu leerlee kii yi pare danañ ko leeral bu ci nekk wax ne yii mooy nafsiya yi ak yi nga xam mooy salbiyaat yi yi nga xam mooy maanawiya ak yi nga xam mooy maani ya yëpp nañ ko leer insha allahu taala kon ñu xam leen tamit nañ xam ne yàlla tamit dafa tënk doomu aadama ay xelam ak xalaatam ci yenn barab fi ne doomu aadama lépp lu mu xalaat ba pare rek saa suñ ko xoolee munta génn ñett aduna bi yàlla fi la loolu ci la tënk xelam doomu aadama munta génn ñett doomu aadama fi ne saa bu xalaatee ba eggal xalaatam munta génn ñett yi ak ci anam googu mën a wëlbati nag benn mu doon loo xamante ni lu mën a nekk la lu mën a nekk doomu aadama bu xalaatee ba eggal fi no bo tegee xalaat yi xalaat ben mu nek lu mën nek wala ñaaré mu nek lo xamanteni lu mënta nek la ñettel wala mu nek lo xamanteni lu mën nek la mën nek nekk ñak naa ñàkk fi ne doomu aadama ay xalam ay xalaatam génnul li kon ñu xamal leen ne leen xelum doomu aadama di xel mu set mu sell xam nga doomaadama saa bu xel mu sell xel mu sell laa wax de waxuma xel mu kon génn naa ci xel mu taq kon xel mu sell saa bu xalaatee ci yàlla rek day gis ne yàlla moom ni ko jekk moom dafay nekkoon ku fi jiitu la te mosu fee jóge ñu ngi noonu tamit fentuwoon ni xel mu sell saa bu xalaatee maanaam ci xalaat ne daal maanaam muy gis ne leneen loo xamante ni lu bokkute yàlla jiitu fi niki ki maanaam xalaat ne am mbindeef daal moo xamante ni nga xalaat ci kenn ci mbindeef bi daal gis ne mbindeef mi daal amul fenn fu mu commencé nga xam dafay nekk ku fi jiitu loolu xel mu seel saa bu xalaatee day gis ne loolu moom mustaxil la mu nekk ni ki leen ci yenn ci euh, nit ñi nga xamante ni dañuy topp seeni xalaat rek am ñoo xam dañuy wax ne fi mu nii xam nga yàlla dafa bind doomu aadama ci ndox ak ban ñu ne nag ndox ak ban moom naka jëkk dafay nekkoon avant yàlla di bind doomu aadama ndox ci ndox ak ban kenn ndox ak ban dafay nekkoon lu jiitu moo tax yàlla mën a jël ci ndox ak ban bind leen ci ñu jàpp ne kon naka jëkk moom ndox ak ban moom toujours dafay nekkoon xam nga ndox ak ban loolu ay mbindeef yàlla kon ngay japp ne ñom naka jek dañ fay nekkon mom lu mënta nekk xel mo xel mu soufé mu ñak ay xalaat mu di moy xalaat moy xalaat lo mais xel mu sel sa bo xalaat day gis ne loolu mënta nekk kon loolu day dàqonte te yenn ñi nga xamé yi xalaat wax ne bi yalla di bind doom adam ci ndox ak ban ndox ak ban fay nekkon naka jek motax mu man na tibbu ci loolu di leen ci bind fekk loolu dàqonte nak réalité niki jek yalla mom moo fi jiitu te dara jiitu moom moo bind ndox moo bind suuf ni ki daal di jël ci loolu tibb ci bind ci doomu aadama nekkul na dafay nekkoon naka jekk moom mu ñëw tibb ci loolu daal ciy bind ndax nekk gi mu fi nekkoon moo taxoon man cee bind waaye bu fi nekkutoon du ci mën a bind déedéet tëddeewul noonu. ni noonu tamit xel mu sell bu xalaatee day gis ne li nga xam mën naa nekk ak mënta mën a ñàkk. am na ñoo xam man bu ko xalaat day gis ne lii mën naa nekk mën naa ñàkk. ni ki noonu doomu aadama bi maam ak deeyam tey ak dundam ak dundam loolu mën naa nekk tey tey doomu aadama fi ne mën naa dee léegi mën naa dee suba loolu loolu ci nekk mën naa nekk waaw sosu mbindeef gi tey mu juddu tey ak mu juddu suba loolu lépp mën naa nekk kon da ci am loo xamante ni lu mën a nekk la ak lu mënta nekk kon doomu aadama xelam giirul ñett yi kon léegi. buñ duggee ci melokaan yooyu li tax ñu jiital yi mooy day doon loo xam daf lay ab laltaan lay doon xam te eh, bu dikkee ci yeneen yi ci kanam rek day mën a am lu mu lay dimbalee bu baax a baax kon yi nga xamante ni mooy melokaan yi njëkk doomu aadama bu matee mu kalaf mu nga ko gëm ci suñu borom fas ko téye ko xam ko bu baax ba ci jiitu mooy ci ci ci ci ci sifaat yi nga xam dafa sax ci suñu borom subhanahu wa taala mooy al wujuud al wujud am amuk suñu borom subhanahu wa taala mu yalla ko am la doon ko ñu wax ni rek naan yalla, yalla yalla yalla ta fekk yàlla amul ni nekkul yalla al wujud la ko am la ma am ko am la deug lolu mo ci jiitu li nga wara ñëk gëm bi nga maté mu kalaf da nga wara gëm ne nak léegi yalla moom nga xamne ku ko am xam dañ koy wax ni rek fekk amul doonte gisoo ko dangay gëm ne yàlla moom ko ama am la waaw niki noonu loolu mooy sifaat mooy melokaan bu njëkk ci ñaar fukki melo yooyu ba ko ñaareel mooy nga gëm ne yàlla ku fi jiitu la maanaam amul leen lu fi jiitu yàlla dangay gëm ne yàlla moom moo fi jiitu amul leen lu ko fi jiitu niki noonu tamit nga gëm ne yàlla dafay des ba faaw. duñ dem ba beneen jamono ñu ne yàlla jeex na daal nekkatu ci loolu amut loolu mooy ñetteel bi niki noonu tamit ñeenteel bi mooy nga gëm ne yàlla moo bind mbindeef yi waaye ne dafa wuute ak ñoom ba ko juróomeel nga gëm ne yàlla ku doylu la ci boppam ajowul ci jëm ci mbindeef yi ajowul dara ci ñoom mbindeef yi kay ñooy aajowoo jëm ci yàlla waaye yàlla moom aajowul dara ci mbindeef yi soxlaalu leen dara mbindeef yi ñoo soxlaal yàlla waaye soxlaalul mbindeef yi dara loolu da koy gëm kon bind gi yàlla bind bul gëm ne rek euh, maanaam dafa mënutoon ñàkk mu bind ñu wala suñu bindoon dafa am koy wàññi ci nguuram gi wala am bind gi mu bind dafa am lu ñu koy yokk déedéet nga gëm ne tamit jaam gi ngay jaamu yàlla yow yokkuloo dara yàlla ndax yàlla la nekk ci ay malaayika ci maam junuudu maam jun maam soldaaram yàlla yi maanaam soldaare suñu borom yi waxuma la maam sax fi ne ni masalan li nekk ci ay malaayika ci kaw suuf ak ci ci malakut nga xam mooy dina ci asamaan ci ay malaayika ak biir suuf di ko jaam di ko sàbbaal ñu ëpp fuuf li nga xamante moom mooy doomu aadama yi ak sax jinne yi kon yàlla bind gi mu bind yow sag jaamu yàlla soxlaalu ko yow kay la jëriñ mais jëriñu yàlla suñu borom subhanahu wa kon dangay gëm ne yàlla ajowul ci yow dara waaw lenn loo ko mën a waaye moom aajowul bi ko juróom-benneel nga gëm ne yàlla nag kenn la wax daa nii ja mooy nga gëm yàlla. kennam gi nga gëm ne yàlla ñaar yàlla nekkul gëmal ci àdduna xam ne fi ndol nii bul gis mukk jàpp ne yàlla daal ñii nii ci mbindeef fi dafa am yàlla yu wuute daal nga xam comme ñenn ni ñu koy gëmee yeneen diine yi am yàlla yu bëree bëri déedéet yàlla àdduna ñaari yàlla nekkuñu fi ñetti yàlla yi nekkuñ benn yàllaa fi nekk bul gëm mukk ne ne maanaam ñii nii yàlla ji moo leen bind ñii yàlla ji moo leen bind moo tax ñii nii bu la neexee def lii ñii ñii nii mënuñoo def lii déedéet benn yàllaa fi nekk te moom mooy digle te toujours kàddoom moo fi nekk mus fee jug kon yàlla amul ku koy ñaareel ci jëmmam wala mu koy ñaareel ci melokaanam sifaatam yi ak ak ay jëfam ak melokaanam yàlla kenn du ñaar la ko ci loolu mu mel moom doo nga ko mel fi ñaari yàlla bu ñu nekkoon ci àdduna mbir yi fi ne ni mu tëddee ci àdduna ak ni mu doxee ak lépp nu nekkee ci nizaam boo xamante ni wàccul ko suñu borom teg dalay wan ne yàlla doo nga fa nekk ndax ña loolu sax yàlla wax na ko ci alxuraan bu ñaari yàlla nekkoon kay mbir yi daan day tasaaro ndax fi noonu tey masalan yàlla ji mën naa bëgg ne damay taw tey yàlla ji ne la ko doo fi tawe wala yàlla ji ne Euh, ñii kat bu ñu defee naka suuf noonu ma dugal leen sawara yàlla ñëwee déedéet àjjana laa leen jëmal wala yàlla na naa dugal ñi àjjana yàlla na ji ne ko déedéet fii laa jëmal kon da gis ne kon adduna boobaa du nekkati ci am nizaam du nekkati ci organisation lépp day maam def li nga xam lañu la ñu wax euh, confusion nga xamante ni ku ci mbir yi day jaar fi du tegu ci ci nizaam daal léegi mbir yi ni mu tegoo ci benn mbir lépp di dox ci benn mbir fi mu loolu moo ne yàlla benn yàlla dong fi nekk fi ni doon bu fekk ñaar yalla nek yalla bi ne jant fi la bëgg mu sowé fi yalla bi ne ko diir fii laa fekk fi kon xam nga ne kon ay dana am kon wahdani suñu borom gi dafa gëm dafa war ci nit ki maté mu mu gëm ko kon waxagoon na juroom benn melo ma limat ko fi ne saa bu may dugg ci ko leral dama koy leral bam mu leer bu ko defé nak limal lako ci lim bi na nga japp ko par benn kon lim naa juróom-benn euh, yi ma lim mooy wujud mooy li ma lim mooy amug yàlla gi dama ko bëgg wax ci arab dama ko bëgg wax ci wolof ngir ki nga xamante ni loolu mooy gën a neex ci moom kon wax naa juróom-benn melo melo yi ba ci njëkk mooy amug suñu borom gi ñaareel mooy jiitu gi fi yàlla jiitu ñetteel mooy des gi fi yàlla des ba faw juróomeel bi mooy wuute gi yàlla wuute ak mbindeef yi juróom-benneel bi euh, waaw ñeenteel bi mooy. maanaam ma commencé waat ko bi ci njëkk mooy am gi suñ borom am ñaareel moom mooy euh, jiitu gi fi suñ borom jiitu te am am fu mu commencé ñetteel moom mooy des gi fi suñ borom des ba faaw duñ ba jamono ñëw ne jeex na ñeenteel moom mooy wuute gi suñ borom wuutee ak mbindeef yi juróomeel bi mooy doylu gi yàlla doylu ci boppam aajowul ci kenn dara baa leen juróom ben moy wetuk suñu borom gi nga xam dafa kenn ci jëfum kenn ci ay melom kenn ci leppam akuy melo kanam leppam legi nak ci mi juróom ben yoy dafa am ben bo xamanteni dañ koy tuddé nafsiya moy wujud baat wujud moy amuk yalla gi dañ koy tuddé nafsiya mom lañ koy tuddé way amuk suñu borom gi dañ ko tuddee nafsiya juróom ci des nag moom la ñuy tuddee salbiyaat waaw moom la ñuy tuddee salbiya mooy salbiyaat yi nga xamante ni day dàq lépp lu yëllut ci suñu borom subhanahu wa taala waaw da koy dàq moo tax kon juróom benn melkaan laa wax ba ba ci njëkk moom mooy amu yàlla gi moom la ñu tuddee nafsiya jiitu gi fi yàlla jiitu ak des gi mu fiy des ba faaw ak wuute gi mu wuuteeg mbindeef yi ak doylu gi mu doylu ci boppam ak tamit maanaam nekk gi mu nekk kenn loolu mooy salbiyaat yi moom lañu ñu tuddee salbiyaat yi ci melokaani suñu borom ñu tuddee salbiyaat yooyu mooy salbiyaat yi kon léegi am na tamit xam nga li naa ci ñaar fukki melo yi juróom benn melo kon tegal juróom benn melo yi nii ma indil la yeneen juróom-ñaari melo léegi am na ci melokaani suñ borom yi mooy maanaam yi nga xam dafa sax ci suñ borom dañ war a koo gëm yoo xam dañ leen di tuddee almaani yi muy almaani yooyu nag ba ci jiitu moom mooy qudra mooy ma wax ko ci olof mooy kàttanu suñ borom gi ak li nga xamante ni mooy nam nammeelu suñu borom gi subhaanahu wa ak xamuk yàlla gi ak dundam akuk déggam akuk gisam akuk waxam muy juróom-ñaari melo kon juróom-ñaari melo yi dañ ko war a gëm ci yàlla muy danga war a gëm ne yàlla suñu borom ci moom ku am kàttan tey ku am coobare la muy ñaar da war a gëm ne. xam xam nga limoon naa juróom-benn teg naa ko ne léegi dama lay indi yeneen juróom-ñaar kon juróom-ñaar yi ma lay indil ba ci njëkk mooy nga gëm ne yàlla tamit ku am ñaareel ma nga gëm ne yàlla ko am coobare la ci lay ci coobaram ci lay jëfee ñetteel ma nga gëm ne yàlla ku am ku xam la maanaam am na xam-xam xam gi yàlla xam sax moo tax ñun mbindeef ñu mën a xam nga xam ne ngëm tamit yàlla kuy dund la dundam gi sax moo tax lépp di dund mooy ñeenteel juróom ba nga gëm na yàlla kuy dégg la juróom benn ba gis la juróom ñaari ba nga gëm ne yàlla kuy wax la léegi nag juróom ñaari melokaan yi ma indi yooyu lañuy tuddee ci ñaar fukki melo yi ñu war a gëm ci yàlla juróom ñaari yi mu indi mu lañ tuddee almaani muy melokaan mooy yi nga xamante ni day saxal ak mat ci yàlla suñu borom subhanahu wa day saxal ak mat ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala léegi nag day doon baat yoo xamante ni saa soo ko waxee day am lu muy saxal am lu muy dàq léegi nag mu doon baat yoo xamante ni fi mu toll nii saa boo ko waxee day am leen lu muy saxal beneen atte bu muy saxal ci yàlla nga xamante ni day dëggal faaw mu am yeneen baar yoo xam day génnewaat ci biiram dëggal nag li nga wax wane na yàlla lii la baat yooyu nga xam mooy génnewaat ci juróom-ñaari baat yi mu wax nii dëggal ne yàlla moo doon lii baat yooyu la ñuy tuddee almaanawiya bokk tey moo xam njëkkoon wax li mu njëkkoon wax mooy maani mooy baat yi mu njëkk wax juróom-ñaari yooyu ci topp ji ci génnewaat nag mu la ñuy tuddee almaanawiya nga xam mooy dëggal ne yàlla lii la yooyu nag bi nga waxee ne yàlla am na kàttan kon léegi faaw nga dëggal ne yàlla aji am kàttan la faawu baat boobu amul ci génnaat kon léegi baat yi muy waxaat ni di ko indiwaat juróom-ñaari la kon nga bañ koo jaawale ndax baat yi ma ñu ko wax noonu rek dem baat bu ci nekk baat bu mu juraat génnewaat bi nga gëmee ne yàlla ko am kàttan la faaw léegi da ngay gëm ne yàlla ku amee kàttan la muy benn bi nga gëmee ne yàlla am na coobare ci lay jëfee nga gëm ne yàlla kon borom coobare la bi nga gëmee ne yàlla muy ñaar bi nga gëmee ni yàlla ñetteel bi mooy bi nga gëmee ni yàlla ku am xam la aji aji ku la ku amee ak xam-xam la ame ak xam kon gëmee ni yàlla ku aji xam dëgg la mbir mu ci nekk nam ko xamee nam ame ak nam tëddee ak nam doonee noonu la ko xamee ak noo ko mën wëlbati bi nga gëmee ni yàlla kuy dund la tamit danga ngaa yàlla aji dund dëgg la muy ñeent bi nga gëmee ne maanaam yàlla amee na dégg da ngaa gëm ne yàlla kuy dégg la muy ku amee ak dégg ak kuy dégg bokkuñu ku amee ak dégg moo ko xam da ngay dégg ku mbindeef maanaam maanaam mbindeef dana dégg mais yàlla dafa doon koo xamante ni maanaam kuy dégg la muy kuy dégg muy kuy dégg ba déggaatoo mooy mbir yi loo wax rek day dugg ci biir dégg-dégg suñu borom bi ndax yàlla du dëngalu maanaam du doon ko xam da ngay wax ba pare mu dëngalu ngir dégg la di dëngalu nii di ngir dégg li loo wax rek day dugg directement ci dégg-dégg suñu borom subhaanahu wa taala donte sax danga doon déey dangay ngay déey ab mbir day dégg day dugg ci biir dégg-dégg suñu borom subhaanahu wa taala bi nga xam ne ko yàlla dégg sax mooy gën a foor fuuf ak dënd doonte danga doon déey sax na yàlla déggee li ngay déey sa morom doomu aadama na ko yàlla di déggee mooy gën a foor fuuf ak dënd kon yàlla ak kuy dégg la bi nga xam ne yàlla kuy gis la amee na gis kon yàlla dafa nekk kuy gis xaqiiqatan nga xam léegi yàlla du euh, maanaam dëngalu ak di téen ngir xool dara loo xam daane ci suuf nii wala muy téen ci kaw asamaan di xool loo xamante ni daa daa fekk daane ci kaw déedéet lépp lu doomu aadama def ak lu mën a doon dugg na ci biir di gis gis suñu borom subhaanahu wa taala lépp day ñëw dugg ci biir gis-gisu suñu borom subhaanahu wa taala dara génnul gis gis suñ borom subhaanahu wa mhm. kon loolu danga koy gëm ba ci mujj mooy juróom-ñaare mooy nga nga ne yàlla day wax kon saxal nga ne yàlla ku aji wax la kon boo jëlee juróom-ñaari melokaan yii ma boole yi ma wax nii ak yeneen juróom-ñaar yi ko jiitu woon ak juróom benn yële ma njëkkoon lim léegi nga boole leen dafay daal di nekk ñaar fukki melokaan kon léegi ma limalaatal la lépp benn par benn ngir nga xam ko mu leen nañ kon benn mooy nga gëm ne yàlla ku am la ñaareel ba nga gëm ne yàlla moo fi jiitu ñetteel ba nga gëm ne yàlla dafay res ba faaw ñeenteel ba nga gëm ne yàlla dafa wuute ak mbindeef yi juróomeel ba nga gëm ne yàlla moom ku doy la ci boppam aajowul ci kenn baa ci leen dara te lépp aajowoo na ko juróom benneel ba mooy nga gëm ne yàlla kenn la juróom ñaareel ba nga gëm na yàlla ku am kàttan la juróom ñetteel ba nga gëm ne yàlla amee na coobare juróom ba gëm ne yàlla am na xam-xam fukkeel ba nga gëm ne yàlla kuy dund la fukk ak benn ba nga gëm ne yàlla kuy dégg la fukk ak ñaareel ba nga gëm ne yàlla kuy gis la fukk ak ñetteel ba nga gëm ne yàlla kuy wax la fukk ak ñeenteel ba nga gëm ne yàlla ku amee kàttan la ku amee kàttan fukk ak juróomeel ba nga gëm ne yàlla aji am coobare la ko juróom bennel ba nga gëm ni yalla aji xam deug la fukk ak juróom ñaare ba nga gëm ni yalla aji dund la fukk ak juróom ñettel ba gëm ni yalla aji kis deug la fukk ak juróom ñentel ba nga gëm ni yalla aji deug la ah fukk ñaar fukkeel ba nga gëm ni yalla aji wax carrément kon loolu moy ñaar fukki melo yi nga xam dafa sax ci suñu borom subhanahu wa ta'ala muy li doomu aadama war a gëm nga xamanteni tekkandol xamne li moy melokan yi xam dafa sax ci yalla kep kuy mënkal la ci nga gëm ko te deggal ko ngir sa iman mëna gëm mëna degg iman doomu aadama moy tawhidam ci yalla du wër mukk lu dul ne da nga gëm melokan yi haqiqatan deggal ko bu wër wër sa iman sa tawhid doog mat ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kon eh, bu ci yeneen bu ñu fi yàlla bàyyee dinañ dugg ci melokaan yi nga xamante ni mooy tax yàlla uluhiyam gi dañuy wax maanaam uluhiya gi ak rubiya gi ak li nga xamante ni moom la ñu wax euh, shurutul faaxil yi ak sifaatul kamaal yi ci suñ borom yooyu yëpp dinañ ci dugg def ko ci wolof ngir mu leen naññi ñi nga xamante ni euh, wax ko ci olof ni moom la xam ci boo ko firi ci majaalis noonu dana leen dimbali ñi nga xamante ne ñaar yëpp moom dina leen dimbali mu gën a nekk loo xam bénéfice lay doon ci ñoom kon waaw aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu